voilà tey ndaje bi li ko taxoon a jóg mooy organiser benn forum maanaam benn euh, ndaje boo xamante ni bi dan si woo acteurs yëpp yi nga xamante ni bi dañuy yëngu si li ñu woo énergie renouvelable maanaam énergie nga xamante ni bi énergie yu mën a renouveler la mu nekk ku ne xam na ne énergie renouvelable énergie dafa nekk lu am solo si dundun askan dafa nekk lu am solo également si économie réew te ku ne xam na ne consommation énergie dafa yokk au niveau international au niveau national même au niveau local la la demande elle est extrêmement importante Nous ñu également utilisation énergie day am conséquences énergie utilisée classiquement a des conséquences en tout cas sur l'environnement donc nous euh, avons ñu euh, défi que nous avons lever relever concilier la consommation énergie consommation en énergie li ñuy woowee développement durable fexe ba li ñuy consommer ci énergie du am jeexital bu bon en tout cas ci survie ci environnement bi te loolu nag buñ ko bëggee relever ci euh, solution bi mën a bi njëkk a trouver maanaam bi nga xamante ni moo gën a neex a trouver mooy les énergies renouvelables énergie nga xamante ni bi xëy na pour ñu amaat ko day yomb trop parce que la plupart des énergies les énergies fossiles énergie yoo xamante ni bi xëy na dañuy épuisé wu parce que ni ñu leen di utiliser dafa dépasser trop ñoom ni ñuy régénérer wu donc moo tax euh, am énergie boo xamante ni bi xëy na boo ko amee tey pour nga amaat ko day yomb trop yaakaar naa ne da nga see war a jàpp fexe ba développer secteur boobu loolu moo taxoon tey ARD ak ses partenaires ñu invité tous les acteurs euh, au niveau national ak au niveau régional pour ñu fexe euh, daje waxtaan fexe ba nan la ñuy fexe ba trouver idée fexe ba nan lañuy nouer ay partenariat pour fexe ba secteur des énergies renouvelables mu nekk un secteur bu jëm kanam parce que nous avons un objectifs en matière d'accès universel à l'électricité et pour nous atteindre ces objectifs là le secteur des énergies renouvelables nous apporter une satisfaction importante. am importance moo que nous ñu féliciter ARD ci cette initiative objectif 2025 objectif 2025 euh, pour nous atteindre ko euh, y a ku ne xam Sénégal découvrir récemment. ay hydrocarbures mel na pétrole ak gaz te jàpp naa ne hydrocarbures yooyu bu ñu leen commencé di exploiter dina indi dina ñu indil ay satisfaction yu bëri par rapport objectif euh, accès universel à l'électricité mais aussi waruñu fàtte maanaam yeneen source d'énergie parce que aussi euh, énergie nous yi trouvé handicap par rapport ak objectif la transition énergétique bi aussi à côté des énergies fossiles classiques nous wara fait les énergies renouvelables ça promouvoir leen dolel leen bu ko défé mu aussi ay satisfaction par rapport ak euh, objectif yi nga fixé si jëm ci accès universel à l'énergie. ñi ngi rafetlu sunu teewaay fii ndax boobu ba léegi ñi ngi gunge ARD yi def nañ ko Fatick defati ko fa delluwaat defaat ko fii Saint-Louis ñi ngi rafetlu vraiment lii nga xam ne ARD yi sumb nañu ko te vraiment mën nañ leen ci wax ci kaddu gu sama kàddu gu suufee ndax euh, autorités yi danañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a leeree ci nii danañu joxe sunu engagement pour mën leen a jàppale ci lii ndax lii ñun sunu liggéey la waroon a doon. kon ñom buñ ñu wé fa ñoom fa nga xamné fofu la leen état tégit duñu def loolu gën ko rafetlu. Ah, forum bi njëriñ bi mom lañu waxon sank moy ñu ah, ah, mëna permettre par exemple acteurs yi nga xamné ñom ñoom ñoo nekk euh, ci ci à la base moy producteurs yi moy également ñi nga xamné dañoo nek ci secteur financier bi moy également ñun tamit ñi nga xamné ñi ngi jéem jox jëmm euh, euh, maanaam mbébétu président de la république ñu mën a lënkaloo ñun ñëpp kenn ku ci nekk nga wax la ngay def jamono jii kenn ku ci nekkit it mën a seet naka la mën a gën a euh, saafonteeg moroomam pour que kenn ku ci nekk mbébétam mën a antu loolu mooy nga li nga xam ne ci li ñu jàpp mooy njëriñu forum bi

jot ci li nga euh, euh, énergie pour que nga mëna def sa et nga andi contribution ci développement wu dëkk bi lolu kuko gis xamni d'ici 2025.. li ci ça veut dire que derrière pour que tayit comme ni ko ci zone yo xamné euh, bu baax yi président de la république manam bolé yu bari nga xamni moy ANER nga xamni moy azer nga xamni moy mooy nga jël concession d'électrification rurale yi nga jël Puma jël PUDC ñom ñep dañu lëkkaloo lëkkale yit pour mëna sumbo liguey bobu nga xamni liguey bu doy war la liguey bobu nak ba ñu koy def it nañu ya yaa peut être boo xoolee def euh, ñaari at euh, euh, ministre de l'énergie madame Aïssatou Sophie Gladima tok nak ministre de l'économie et des finances ñu tok wo ñi nga xamni ño yor alal ci àdduna bi pour que ñoom ñu mën a taxaw kenn ku ci nekk wax yan jéego nga mën a nga nga nga taxawee pour mën a atteindre objectif boobu conférence boobu def dem na ba la ñu xalaatoon yàlla def na lañ ci doon xaar la ko ëpp la ñu jot waye taxut ba léegi ñun ñu bank suñuy loxo ndax fi ni gën nañoo talal suñu loxo yenen acteurs yi nga xam ñomi tamit ci yenen ci yenen bànqaas lañuy ñuy liggéey parce que bo né accès à l'électricité du ku nekk tok sa kër rek am courant du ku nekk tok sa usine rek am courant dafa am ñeneen ño xam dañu am njëriñ ci askan bi ndax ñooñu ñooy permettre ci ci ci ci ci ci beneen wàll ñu atteindre li ñuy tuddee souveraineté alimentaire boo xoolee lii souveraineté alimentaire mooy bay dundee mom la ñenn ñi di wax mais li dafa ëpp bay dundé ndax da ngay bay dundu mëna dundal ñene nit su la nexé ndax dina permettre bo xolé ñi nga xamné ñi ngi bay tay ji ni ndox bi nga xamné dañ ko doon xaar bu tawé rek ci lañuy mëna bay ñu dem ba léegi dootuñu xaarati sax taw ndax suñu borom defal nañu wërsegu ndox nekk ci biir suuf si defal nañu wërsëg it ni Sénégal amna ay fleuve yu bari yo xamné ngank nañ ko te fleuve yoyu ak ndox bi ci suuf si bo ba légui même buñu ko daan jëriñoo sax nañu ko daan jëriñoo dañ daan utiliser ay moteurs yoo xam ni maanaam ci gasoil lañ daan dawee lu ci bari te loolu it dafa am ay jeexantal comme ni ko gouverneur rappelé waatee léegi ci gan ci ci ci jaww ji jaww ji it lu jara sóor la looloo tax tey jii nii agence nationale pour les énergies renouvelables moom it sumb ci wetu yeneen structure yi ñu yi ñu wax léegi programme bu rëy programme national boo xam ni dañu ko tuddee programme national di de d'usage productif nga xam ne dañ ci boole lépp usage productif yi boole nañ ci li ñuy jëmee li ñuy tuddee maanaam goqi ndox mi ci suuf si waaye da nga koy goqi ci anam joo xam ni dafay doon anam ju sell ndax doo ko goqi rek bàyyi ko noonu waaye foog nga may ndox bi moom it mu mën a dellu siwaat noonu ndax goqi googu ñu koy jëlee ci biir suuf si moo ñuy permettre ñu mën a maanaam euh, euh, euh, irriguer superficie yi ñu am yépp boo jëlee ci wàllu maraîchage nga jël ci autosuffisance en riz ñoom itamit dañ ci am solo boo xoolee aussi ci programme banane yeeg ak yeneen gàncax yi nga xam ne ñu ngi koy am ci dëkk bi yëpp loolu yëpp dafay participer ci li ñuy tuddee souveraineté alimentaire waaye boo béyee ba pare it doo yem ci bay dangay bay pour man ko petit ci marché de consommation yi diggante bi koy bay ak diko ko ci marché de consommation yi faw nga man ko dugal ci liñu tuddé chaîne de froid bu féké né nang ko bayé noonu nga koy su féké né dang ko wara transformer yit dangay laaj ay industrie yo xamné ne tamit dañuy ñëw jël produit bi à la base matière première bi ñu man ko wëlbeuti def ko ci ay produit yo xamné ne dana mëna gëna yagg ci ci marché bi lolu yoyu yëpp nak bo xolé bu baax fay laaj énergie té lolu yëpp agence bi taxaw na ci sumbu ci ay programme yu am solo pour mëna jàppale producteur yooyu ak acteur économiques yooyu ci loolu moom rek yemuñu ci waaye ñi ngi ci woo ñeneen ñiit am na sax ñenn ñoo xam ne xaw nañ xareñ nañ ci déjà ba pare soo jëlee lu ñuy tuddee banque agri la banque agricole ñoom it def nañ ci ay jéego yu bari te it ñi ngi leen ciy woo ñoom ak seeni naatangoo ñu gën a jàppale gouvernement du Sénégal ci loolu jërëjëf